avant élection yi parce que suñ ko defee avant élection yi dañ naan dañ leen a singali élection yee tax ñu leen di jàpp loolu moo tax ñu tegandi lépp ci suuf mais réew lu ñëpp bokk munoo koo sàcc def ci lu la neex ba noppi dara du la ci fekk ñoom ñëpp ils vont rendre compte donc loolu moo tax Macky Sall ndeysaan da nga koo yërëm bu demee bay xëccoo ak influenceurs yi nekk ci TikTok bi di campagne xam nga loolu gàcce gën a koo rëy Macky Sall dem moom. Mbaye ñemewu la ñëw Sénégal toog ci TikTok bi toog ci Facebook bi toog ci WhatsApp bi ak di def ay appel ñu koy tegal ci ay micro pour mu wax pour que ñu teg ko ci haut-parleur yi pour ñu dégg li muy wax Macky Sall ndeysaan jar naa yërëm kon loolu mooy situation benn boor bi mais liste boobu du Macky Sall kese de ñaar ña ko jiite yëpp ñemewu ñoo ñëw ci Sénégal Macky Sall ak Karim Wade ñoo fa nekk di campagne TikTok ak WhatsApp. Karim sax moom daa jàpp ne xëy na ñàkk na élection yi moo tax kenn dégg ko mais Macky Sall moom chaque jour mi ngi woote ba tey bu wootee yëmbal suba mu wootee Kidira bu paree Kidira daal daa dem woote Pikine man damaa jàpp ni ñi nga xam ne ñoom la àndal di campagne sax respecté wuñ Sénégalais yi parce que dégg naa kenn ci ki ko doon conseil comme ministre tey mu wax ci benn télévision daane non nous some en train d'innover dans la campagne lu muy tuddee innové mooy Macky Sall mu nekk ci TikTok bi di campagne il faut ñu respecter ñu parce que boo respecté sénégalais yi wax dëgg yàlla nga ne yaay tëdd liste bi da ngaa war a ñëw ni rëj ci dëkk bi ak loo ci mën a fekk nga jël te pourtant ñoom loolu lañ doon xase Karim Wade dañ ne Karim dafa ragaloon na ñëw ñoom waa PDS dañ ko doon wax ñoom waa APR dañ daan wax ne Karim Wade bu amee fit na ñëw campagne mais Macky Sall aussi lim daan wax Karim Wade na ko def na ànd na dem jaar Qatar jël Karim ñu ànd ci avion ñëw fii campagne loolu kay moo gënoon a simple mais la fait que ñemuñ ko def mooy ku ci nekk xam nga ni danga am loo ameel askan wi danga am ay mbir yoo xam ne def nga ko fi te soo ñëwee da ngay rendre compte donc encore une fois Macky Sall n'ose pas revenir au Sénégal pour que mu leer Sénégalais yi parce que ba léegi gis naa ñuy laaj naa Macky Sall kañ lay ñëw Macky Sall ñemewu la ñëw Macky Sall ñemewu la ñëw parce que Macky Sall xam na ni njombe yi mu fi def ak yi dossier yi mu fi def. dañ koy teg ci table ji te bu xësee dugg Sénégal dootu génn génnaat yéen bu ngeen fàttalikoo jour bi mag Sall di génn presse dafa daw yow nan ngay invité ay président yu ñëw ci prestation de serment bu Bassirou Diomaye fay sa successeur yow yaa leen invité nga ñëw yow avant ñuy añ sax yow jël nga avion daw ñibbi daw génn dëkk bi avant avant président yi nga invité añ sax yow daw nga jël sa avion dem kooku daw kooku bu dul daw lan mooy daw ku def noonu ñeme naa ñëwaat ci dëkk bi. fii ku ko doon diri sax du fi ñëwaat kon li leer mooy devant nous y a rien coalition yi fi nekk boo jëlee coalition beneen bi parce que benn coalition moom comme ne ma seen ñaari tête de liste ñi mu ñoo ñëw Sénégal ñooñu moom seen wax kenn wax ko et ñoo yàq réew mi rey fi ay nit Didier Badji Fulbert Sambou xam nañ ni dossier boobu dañ koy tegaat ci table ji leeral ko fan lañ leen reyee kan moo leen rey kan moo leen raylu nun leen raye loolu lépp daan ko leeral incha allah ba sénégalais yépp xam ne ñii ay musiba lañ ci réew mi nguurug président Macky sàll nguur gënu koo bon ci àdduna bi loolu lañ bëgg woon sénégalais yi mais ñu ko jàppoon tey wala ñu jàpp ay nitam tey ñu teg leen ci ci ci ci kaso yi kon bu ñu demee élection kon sunu victoire du neex dañoo bëgg victoire ba jubilé ba pare dañoo bëgg a dem ndékki ba suur ànd ak sénégalais yi massivement voter la liste Pastef ba pare dem añ ba suur dem taxaw xaar tuuti résultat yi commencé wàcc dans la diaspora ñuy jubilé 18 jot résultat yi bàcc yi di leer ñuy jubilé buñ jubilé ba pare nag daan aywa justice defal sa liggéey normal léegi amatul benn prétexte yëfi jaar yoon donc amuñu benn sikki sàkk que devant nous y a beneen beneen coalition bi mooy coalition suppu kànja coalition suppu kànja moom man dama leen a yërëm coalition sap suppu kànja boo leen xoolee bañ dajaloo ci seen oto bi rek nga yërëm leen des fois seen oto ñooy ëpp nit ñay ñëw oto yi nii andi ci gox yi nii dem ñoo ëpp nit ña leen di ñëw seet alors que ñun suñuy suñu campagne fu ñu mën a dem pour nga dugg jafe-jafe ngay am man bi nga xamee ni bi may dem dama am retard ci vole bi pour dem Ziguinchor bi ma yegsee fekk meeting baa ngi commencé jafe-jafe yu rëy laa am pour mën a yëg ci podium bi parce que nit ñi non seulement bëri nañ mais bu ñu la gisee cofeel gi ni am ci yow ak nit ñuy saax saaxee leader yi ak nit ñu bëggee da nga xam ne sénégalais yi ku nekk xam nga ni liste boobu yemul ak yeneen liste yi boo jëlee nag beneen liste bi ñoom kenn gisul ñu leen ñu campagne dajale lu mat lu mat lu mat cent personne fu ñu mën a dem dañuy taxaw seen kaw oto nit ñi gis leen ñu commencé euh, di euh, jubilé mel ni di yëkkat seen i loxo te boo xoolee duñ la woon mukk nit ñi àndal toujours oto bi la ñuy parce que amuñu ay nit. donc encore une fois cette coalition laa duñu suñuy adversaire coalition boobu nag bëri nañ ca rëy làmmiñ bëri na ñoo xam si woo wane nañ ca ab boccatiku waaye boo leen xoolee tekkiwuñ lu bëri coalition boobu c'est une coalition que j'appelle une constellation de star mooy lan mooy jël ñun ay nit ñu nu xam mais boo demee ba ci biir amuñu doole te maa leen ko wax fii man samay wax kenn du ma vaar gis nga coalition boobu ndeysaan dama leen a yërëm ñu bari ci ñoom duñ nekk député parce que man dama fee gisul benn coalition bu fi mën a demal boppam moom kese am groupe parlementaire groupe parlementaire c'est treize députés nañ ma wax ban coalition ci ñoom moom moo mën a amal boppam moom kese treize députés amu ci ñoom ñëpp ñu bëri ñoom duñu nekk ay député c'est dommage pour eux mais duñu am ay député moo tax euh, on aura vraiment euh, une assemblée de qualité parce que ñi nga xam ni amuluñ kenn njariñ c'est dans ces élections la qu'ils von disparaître de la scène politique parce que élection yi ñu jëm l'intérêt de l'élection mooy day am un renouvellement de la classe politique dafa am ñu bëri ñoo xam dañoo nar jël retraite politique yóbbaale seen seen seen seen i jeunes malheureusement parce que am na ci coalition moom am nay jeunes mais jeunes yooyu fa nekk malheureusement dañ nara a dem jël retraite politique pourquoi parce que dañu def ay choix yoo xam ne amul njëriñ donc beneen coalition bi comme ni ma ko waxee mooy coalition bi nga xam ni moom ki koy jiite moo fi nekkoon premier ministre du Sénégal euh, woo nañ ko débat ñu def seen pexe réel ko ba CNRA wax ne débat bi mun tam mais ñun leen jàpp mooy moom amul fit gis nga politique boo amul fit da ngay bàyyi waa ji du dem waa ji amul fit amul charisme ñemewul a taxaw dëggal boppam lépp lu muy def da koy deflu pendant longtemps ay nit ñu tekkiwul dara la doon jël ñu koy saagaal nit ñi tey nag élection yi ñëw na buggul dem élection ñaan na fu ne pour élection yi yàqu élection yi nag yàquwul dañuy dem élection le 17 novembre incha allah te buñ demee dañ koy duma duma yu leer nañ Parcelles Assainies Gueye mënu koo gañe fii laa leen ko wax bind leen dañ koy duma parcelle dañ koy duma Grand Yoff dañ koy duma fépp amul fenn fu mu mën a gañe fépp lañ koy dóor fépp man gëm naa ni bureau de vote am mënu koo gañe parce que ñu ngi naan ma ngay defi pexe jéem a gañe bureau vote dégg naa mi ngi def fi pexe yu bëri pour cette fois ci même bu ñu ko dee gagné parcelle au moins mu gagné bureau de vote am mais man gëm naa ni sénégalais yi nekk ci bureau de vote am dofuñu un seul instant bay dem di ko voter kon li ñu jàpp daal mooy élection élection yi c'est plié sunu gars yi ñu jàkkaar lool y d'adversaire parce que sénégalais yi duñu ay dof dañu jël un président de la république Bassirou Diomaye fay jox ko une majorité dès le premier tour lu musul am Afrique léegi nag duñu dem. ñu am sept mois après une élection législative ñu war a euh, tegaat réew mi ci yoon pour jox ko mu def les réformes nécessaires ba nopp ñuy dem di votel keneen parce que l'enjeu de l'élection c'est de faire les réformes à l'Assemblée nationale te dafa am ay réformes organiques yoo xam ne pour nga am ko il faut nga am majorité une majorité qualifiée pas une majorité simple on a besoin d'au moins quatre-vingt-dix-neuf députés pour mën a def les réformes yi leen di permettre yéen sénégalais ñu fi sàcc sunu alal ñu ngeen jotaat seen xaalis ñu fexe ba ñi nga xam ñoo fi rey ay nit une centaine de sénégalais ñu rey leen ngeen xam ñan ñoo leen rey ak ñan ñoo leen reylu ñu fexe ba lépp li nga xam ni ay réforme la yu ñu war a def yoo xam ne ci constitution bi la nekk yu ñu war a dindi ay institutions yu ñu fi war a jëlee ay coppite yu ñu war a andi Sénégal mooy l'ensemble de réformes daf ci am ay réformes yoo xam ne mënuñu koo def te amuñu une majorité qualifiée kon xamal lu lu may wax sénégalais suñ ñu voté lul massivement ñu am une majorité écrasante mën a def les réforme bu ëllëgee du ngeen ñu mën a du ngeen ñu mën a laaj bilan bi ngeen di xaar parce que gis nga pour ngeen mën ñu évaluer il faut ngeen jox ñu tous les pouvoirs pour que ñu mën a ñu mën a ñu mën a exercer li nga moom la ñu bëgg a def c'est ça qui permet de réaliser le développement mais su fekkente ne da ngeen a jël pouvoir bi pour ñu continuer ci éternel Euh, débat politique yi nga xam mooy am ci réew mi nga xam ne dañuy nekk ñaari camp di bii combaaloo réew mi ci guuta la jëm parce que réew day toll moment boo xam dañuy bàyyi wax ji ñu liggéey te ñun wax ji lañ bëgg après le 17 novembre mu jeex ñu liggéey Sénégal pour yërëm suñuy doom yërëm sunu bopp ñun sénégalais yi parce que li ñuy dund nii metti na en 1980 en Chine y a eu un leader charismatique Deng Xiaoping moo ñëw ni chinois yi dañuy dugg ci ay réforme changer la xar kanamu réew mi tegaat réew mi ci yoon ñëpp liggéey ñu àndandoo defaraat suñu réew loolu ñu am ñoom en Chine en quatre-vingt tey ñu ngi nekk ci réew mi ñuy wax ne moo gën a développé ci àdduna bi même États-Unis les gens disent actuellement les spécialistes disent que Chine moo gën a développé mais loolu lu ko waral mooy dañoo taxaw liggéey am un leader boo xam ne dafa xàll yoonu ñëpp topp ci ginnaawam aujourd'hui nag on a la chance d'avoir des leaders yoo xam si duñu sàcc duñu ay tappalekat te bëgg nañu réew mi kon bu leen sénégalais yi accompagner léegi réew mi soppeeku kon nag na sénégalais yi voté massivement la liste PASTEF aux élections du 17 novembre 2024 pour permettre le au président Bassirou Diomaye Faye de faire les réformes nécessaires bu ko defee lépp li nga am coppite la bu ñu war a def pour réew mi soppeeku ñu mën koo def maintenant nag euh, pour terminer jox leen ngeen poser ay questions dañoo bëgg a wax ni réew mi coow li bari na mais li coow liy bëri bëri bëri bëri gars yi li tax ñu bëgg a nekk ay député xam nga lu ko waral Amadou Ba liste euh, euh, député intéressé wu ko Amadou su dee bay nekk ay tête de liste di xëccoo ay député du député bee ko intéressé de daa bëgg fu mu làqatu pour bu ëllëgee kenn du ko mën a jàpp non foo faut xam lan mooy enjeu élection bi Amadou Ba du poste député moo ko intéressé kon su ngeen ko dee votel yéen ngi yàq seeni i vote Amadou Ba lim fi luubal ci réew mi loolu la bëgg a nëbb ba kenn du ko woo moo tax mu bëgg a nekk député